siiw jàmmi boom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo ci moo géej indi la fa waaw tey lan mooy sa rapport ak moo géej waaw moo ah, baax la sama rapport ak moom mooy ay rapport yu baax parce que xam naa ko via Babacar Diaspora moom moo ma doon woo paas ma ko téléphone may wax ak moom bien fa waré dem nak mu nek lo xamné ne leneen la mom tam lolu am ben affaire bu ndaw la won ma dem fa bima fa démé mu nek nit ku am yitté ci doomu adam nit ku respecté nit ci doomu adam parce que man sama billet bi fiñu waxé né fa la wara démé man vendredi la wax ak ñom samedi ma ak bour mu né ma da ngay dem Amérique man ko déwuma dimanche ma nek sama xew rak ñu na ma wo jëndal nañ la billet da ngay dem Amérique li moom ma yóbbu Amérique ma dem fa ñu tek ma ci cote tek ma ci eh, hôtel bu baax di jox lek ak naan ataya ak lepp respect ma diko ko gërëm bu baax baax moo ngi di wax niko social bi momit fim ci japp ya nako yalla yok bamu yok ndax na xalé bu am ambition la xalé bu am vision la donc ma ngoy ñaanal ak groupam am nak nag aji ah, xulle ñoom ñëpp nak borom ataya yeeg ñëpp ma ngi leen di gërëm di leen sant ndax xalé bu baax la franchement parce que bima gisé yaayam tok papaam tok mu joxe déclaration am ay ambition ay aide yu mu bëgg a def Sénégal nga xam ne kii nii wax dëgg yàlla nit ñun ko ñu dimbale si santé dimbale ñu si lekk ak naan boo ñëwee ci Sénégal dañ lay euh, euh, accueillir ak ay bras ouverts te incha allah mi ngi waajal yoonu Sénégal ñi ngi koy xaar ak bras ouverts wax dëgg yàlla xelam doy na ma man xalaatam doy na ma ndax. kuy kuy xalaat lu baax ne naa ko def naa dimbali ki feebar naa dimbali ki amul naa dimbali ki li jar naa jàppale. ma for ci weewu bay ne bi nga fa ñëwee daf la dénk ne la sa ñëw bi nga ñëw fii dama bëgg soo ñibbee senegal mu am njëriñ demal xool sa quartier. waaw sa koñ. lépp loo xamante ni soxla ngeen ko fa te amul leen ko. nga teg projet boobu. wax ma ko ma financé ko mu jaar sa loxo. ngir ëllëg ñi xam ne dem bi nga demoon ci moo géet am na njëriñ ci fa nga dëkk. voilà dëgg loolu dëgg la loolu bi ñu fa demee daf ñu teg ñun ñëpp ah, ñun ak mbër yi ak ñi fa nekkoon mu ne ñëw ngeen Amérique coow li bari na waaye bëgg naa bu coow li baree ñu ñu saafara ko nuñ koy saafaraa mu ne yéen ñëpp kenn ku ne bu demee sa koñ na xool li nga xam ne loolu moo fa manqué ku fa feebar ku ñu lu ñu war a defaraat ngeen wax ma ko ma defar ko mu jaar si seeni loxo kon loolu mu nekk initiative bu rafet boo xam ne ñu ngi koy xaar bés bu ñoom bu ñu jàppee yoon pour ñëw ñun loolu yëpp ñu ngi koy def en place fi bii instant nii man mi nga xam ne am na lu ma dénkoon maa ngi ciy commencé liggéey si du bare bari maa ngi ciy ànd ak koo xam ne maa ngi koy nuyu bu baax a baax muy prési la du ma tudd turam sax mais bu ma nee prési rek taalibe Serigne Babacar boobu dina xam maa ngi ciy ànd ak moom ñu ngi ciy liggéey lu doy waar ak mer moo yi nga xam ne ñoo yor moto yi donc ñoom ñëpp maa ngi leen di euh, dajale di waxtaan ak ñoom ndànk-ndànk bu get déclencher ne day ñew béréb jour sangam bu boba dina gis accueil bu doy war bo xam Sénégal dañ ko talal nak ndax xalé bu ñew ci ñun la té doomu réew mi la fi la dëkk kon jappalé ko warna mëna né a jammi bom ma ci xam dara lepp lu yëngu